tey nag damaa dikk ngir maye secret secret bi may nag may maye kaaraange la bu dëgër boo xam ne képp ko def ni ma ko waxee suñ borom dana musal si accident dana musal si nga dee ci ndox surtout maa nag ñi nga xam ne ñoo dem ci làmb nga xam ne day bëri na lool xam naa nag secret bi may may nag sama xam naa sëriñ yi nag dana dana ma ci mere lool waaye man damay def ngir dimbale doomu aadama yi ndax man damaa bokk fu baax ndax surtout suñu Abdoulahi Mbàkke borom dër bi laa kon jomm naa di wut alal jomm naa di di wut leneen kon lii may def dama koy def ngir dimbale doomu aadama yi képp mais defuma ko ngir leneen secret secret bi nag ni nga koy defee mooy moo njëkk seetal nit ba mu tuur rongañam di jooy moo njëkk seetal nit ba wax ko yére bu ëpp lu muy sol moo njëkk seetal nit ba wax ko ki ko liggéey ak liggéey ji fan la nekk waaye it moo njëkk nombal nit ba nit ki kontaan ci nob bi yëkkati tollook ay millions may ko ko mujj gi mu jébbalu ci moom yaakaar ka tey ak ëllëg boo ko xoolee bul ko laajte fan la bokk Serigne Kéemaan Mbàkke la wuyoo digganteem ak Serigne Touba ñaari jëmm ñoo dox seen diggante muy sët si Cheikh Abdou Borom dër bi jàng alquraanu karim dimbali taalibe yi a ko tax a jóg mu ne ma jëwriñ ma ne ko naam mu ne jamono bi ñaankat yi ku ci nekk yaa ngi lool askan wi kon foog ma jóg di may ay secret waaye foog ma jut dimbali doomu aadama yi tey nag émission bi 100 pour cent secret lay doon képp koo xamante ne am nga doom mu lëj la sëriñ bi dina la jox secret képp koo xamante ne bëgg ngaa am doom mu tëla sëriñ bi dina la jox secret waaye yow mi nga xamante ne bëgg nga liggéey te amoo ko déglool sëriñ bi dina la jox secret bi nga xamante ne boo ko defee di am liggéey moom sax day joxe liggéey ndax mu ngi ay tool yoo xamante ne toolu maraîchage la di bay ay bayu noor waaye bayu nawet di jàppale ay taalibeem nee na ma ñaan taxumaa jug dimbali doomu aadama yi ñoo ma tax a jug ndax su ma toogoon rek li ma bëgg sama taalibe yi dañ ma ko defal wala li ma bëgg mën naa ko ndax Serigne Touba bi nga xamante ne mooy sama maam dañ koy jox kàddu gi mu nuyoo ndax tey émission bi 100 pour cent lay doon sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waa kay sëñ Fallou maa ngi lay fay nuyoo bu baax te di la sant bu baax a baax a baax euh, tey nag ba la maa ñëw si secret yi sëñ Fallou dama bëgg a euh, dama dama dama dama bëgg a wax am lu ma leeral ci wàllu seet que seet. Euh, dafa nekk loo xam ne yombut mm-hmm. te fan yi ñi may woo dafa bari lool te xam nga mënumaa jël ñëpp mënumaa jël ñëpp di leen seetal mm-hmm. daanaka chaque jour bit bu set daanaka fukki fukki nit rek laay jël ngir seetal leen ndax xam nga itam nit ki boo koy seetal dafa am àq yoo xam ne dafa am àq faaw nga leeral ko loo xam ne maanaam dina mën a dala dina mën a dal xel xelam dina si mën a dal te itam boo ko seetalee ba pare dina xam ne yow mii kat seetal nga ko moo tax fan yii yëpp damaa dama dama damaa xaw a xat lool waaye maa ngi koy ñaan mbokk yi Euh, euh, appels yi bari na lool waaye nekku na dama leen bañ a jël mais chaque jour rek damay damay jël lu toll fukki nit seetal leen te xam nga seet bi itam dafa dafa nekk loo xam ne dafa yombul te man damay ndax seet yombut te man damay bëgg saa yu ma ko defalee nit ki rek mu xam ne seetal naa ko. Euh, sëñ bi yu bëri dañuy ñaan dafa am fu ko suñu borom tegoon tey nag ñu ñëw ngir fas yéene waxtaan ak yow ci alquran waxtaan ak yow ci secret yi nga xamante ne lépp tey jii nga doon sët suñ tubaab tey amaana boo toogoon fi nga toog mhm. di nga am li nga war a am lan moo la gënoon ñaax dugg ci li nga xamante ne moo di ñaax waaw si question boobu nga ma laaj am na solo lool mhm. waaw comme la ma la waxoon si sama émission bay jàll rek mhm. maanaam boo gisee may ñaan alal ma si ndax suñu borom neen yaa ayyuha nnaasu inda waxdallaahi àqan falaa taxurnakum na ko dunia wala yaxurnakum billaahi al xaruur suñu borom nee na yéen doomu aadama yi nangeen fexe ba bu leen warkat bi war muy seytaane waaye itam na ngeen fexe ba bu leen dunduk adduna gi war muy alal muy alalu adduna moo xam ay moo xam moo xam ay kër wala ay oto wala lu mu mën di doon man nag yooyu soxaluma man li ma soxal mooy fexe ba di faj aayooy jaam yi képp koo xam ne daal am nga yitte yitte joo xam ne ñor na la boo ma ko waxee la lay lay sama yitte mooy fexe ba faj ba faj ba faj yitte jooju loolu képp ma dugal ci ñaan waaye ut xaalis dugaluma ci leneen ak leneen dugaluma ci man nee naa la li li li ma bëgg mooy jaam ñi di ñëw may faj seeni soxla ci kàttanu yàlla euh, lan moo waral yenn sëriñ yi te foo leen gis du ñoom alxuraan ka def duñ waaw man na yàlla suñu borom daf maa dogal man ci lépp lu may dox lu sell lay dox ndax man sama lépp alquran alquranul karim la ak ay reen sama samay mbir lépp alquranul karim la ak ay reen man képp ku may ñaanal ci alquran laa lay ñaanale ak ay reen waaw te képp koo xam ne itam ñaanal naa la ci alquranul karim incha allah bu soobee yàlla moom la ma lay ñaanal moom da ko gis si kàttanu yàlla. macha allah tey dañuy waxtaan ci wàllum seet laataa ñu dugg ci mhm. ay secret waaw tey moom sa digganteeg seet. Mhm. lan lan moo tax nga ne booy seetal nit ki wóolu sa wóolu bopp moo tax nga ne képp ku ma seetal te gisuloo te gisuma te gisuma la bu la nee jëlaat sa xaalis. waaw waa boo gisee man ma ma wóolu sama bopp ci seet. Mhm. mooy dama koo xam. lenn yi dama koo jàng lenn yi itam baatin la comme na ma la ko waxee woon sa émission ba la jàll lenn li baatin la waaye lenn li itam dama koo jàng sëñ Fallou képp koo xam ne seetal naa la nee naa la nanga nga mel ak ak procès ba ngay dugg ak sox wala soxna sa ngay dugg wala bu dee da bëgg a tukki lu ci mën di nekk lépp loo xam ne nekk na sa kanam insha allahu rabbi bu soobee yàlla su ma la seetalee laax dinaa la dinaa la wax ne la defal nangam wala bàyyi nangam ci kàttanu yàlla loolu man képp ko mën ci seet waaw képp koo xam ne daal seetal naa la moom sa xel moom na dal moom loolu loolu sax yow xam naa am nga si ay témoins yu bëri yow sëñ Fallou am naa si ay témoins te mhm. question bi dama fi ñëwoon mhm. ba ñibbi te defuma ko wala mhm. laaju ma la ko ndax dafa am ku ma ko laaj joo benn soxna soo xam ne daanaka yaakaar bu mu tas si borom këram wala yaakaar bu mu tas ngir dëgg dëgg ci dégg sëy tas sa digganteeg secret bi nga xam nit nga xam nit ki nga xam daa bëgg am jabar ndax loolu tamit ñu nañ ma nit ba nga nekkee xale nga commencé def bi nga nekkee ci daara yi mhm, dëgg la waa kay jërëjëf Sëñ Fallou waaw man moom képp koo xam ne daf maa bëgg a xam mhm. ndax man ma ñi nga xam ne dañuy génn di wax loo xam ne amut wala ñi nga xam ne dañuy dóor mhm. man ma si sëriñ soosu man ndax man ndax man jomm naa lu baree bare ndax sëtub Sëñ Tuubaa laa te jomm naa lu baree baree bari ci sama jëmm ji waaw lu dul njub ak jaamu yàlla fas fas yéenu ma see nekk lu dul njub ak jaamu yàlla fas yéenu maa nekk ci loolu waaw ñi nga xam ne maanaam dañoo bëgg dañoo bëgg borom kër moo xam jigéen ñi nga xam ne dañoo bëgg borom kër képp koo xam ne déggante naa man bu soobee yàlla moom jàpp ne sa aajo moom dina faju moom hmm? maa la wax loolu ñi nga xam ne góor ñi nga xam ne itam dañoo bëgg soxna hmm. soxna tëleen bu soobee yàlla bu ñëwee si man bu dégganteek man mm. lépp loo xam ne bëggoon nañ ko ci soxna mm. ak melokaan yaag yëpp laax mm. bu soobee yàlla loolu moom na nan nan xam ne seen aajo faj seen aajo faj na waaw képp koo xam ne nag bëgg na maa xam man mi di Sëñ Kéemaan Mbàkke mm-hmm. ñëwal Kaolack pencum sëñ Basiru wala boo ñëwee Kaolack pencum sëñ Basiru nga ne leen Sëñ Kéemaan Mbàkke laay laaj ku ñëw Kaolack pencum sëñ Basiru suñu fàllu ne Sëñ Kéemaan Mbàkke lay laaj danañ la womat ba si kër ga. indi la ne suñ kéemaan mbàkke ngi nii. sëriñ bi di joxe <laughs> da ngaa mhm. jox ko kon kooku jàpp naa ne kon kooku amul mhm. lenn lu muy wax lu nekk ci moom. la mais dañu ne da kanam def mu jigi ñu tere la ko. waaw dëgg ndax yi jot def. Mhm. mooy noobal nit ki. ba nit ki ay millions jox la ko ci noob bi kon mu jigi mu jébbal ci yow. ñi nga lépp dégg naa waaw xam nga loolu moom daanaka mbiru mbiru suñ boroom la rek mbiru suñ borom la mais képp ko xam ne am nga yaa ngi bëgganteeg jigéen nga bëgg ca ay noob yoo xam ne noob yu dëgër la noob yoo xam ne maanaam loo wax soxna si mu def ko loo ko tere mu bàyyi ko loolu soo si dégganteek man su ma la ko noobalee insha allah lépp la nga ca bëgg da nga ko am waaw képp koo xam képp koo xam ne itam dafa bëgg soxna bëgg fa fas soxna itam te bëgg ci ay noob wala leneen ak leneen soo si dégganteeg man insha allah bu soobee yàlla su ma la ko fasalee su ma la ko fasalee bu ma la ko fasalee mm. lépp loo ca bëgg mm. insha allahu rabbi da nga ma woo ne ma ah sëñ bi sant naa baax kontaan naa ci yow baax a baax waaw xam nga loolu ku wóolu boppam rek ko wax man su ma lay noobal dama naan la avance avanceal nangam mm-hmm. su jàppee mm-hmm. te day jàpp sax insha allah mm-hmm. nga jox ma li si des <laughs> ñi ñi ma ñi ma ñi ma ko defal bëri na lool waaw ñoo xam ne dañ maa jox avance man noobal leen ba affaire ba affaire ba affaire yi nangoo ñoom dañoo joxewaat leneen sax maanaam leneen leneen lan joxewaat waa waaw leneen lan joxewaat <laughs> daanaka jot gi bëriwut li ñoo la koy ñaan sëriñ bu jot nañu koy may mhm. moo tax buñu gisee mhm. lu bëri mhm. jamono bi gars yi ngi dugg ci bi ñu ngi ñaan ay visa mënuñu leen ko may yow nag ne tay daanaka sa ay taalibe yu bëri dañuy tëkk loolu moom kenn dootu ko werante ci réewu Sénégal ndax sa taalibe yu bëri dañuy tëkkee ko ñëw visa lu tax mu yomb la ndax secret visa yomb la wala secret këyit waaw loolu moom Sëñ Fallou comme comme ni ma yomb euh, euh, euh, nopp gi yombee rek noonu noonu la ma ñaan ci visa yoon bi ndax yàlla dogal na ñu bëree bëri ñaanal naa leen ba yàlla dogal ñu am visa ba dem ndax yow ñu bëri sax ñoom la si woo doon la wax ci lu mel noonu loolu moom daanaka ñoom ñi ma si jëflanteel ñëpp ñoom ñoo ñoo wax dëgg yàlla ñoo ngi kontaan moom mais képp koo xam ne dangay ngay ñaan visa wala nga bëgg tukki moo xam réew mu bëgg tukki soo ma joxee sa tur ak sa sant yoon wi laa lay njëkk a xoolal waaw yoon walaa lay njëkk xoolal bu dee itam da nga ay ñaan yoo xam ne da bëgg ñaan yoo xam ne ñaan yu dëgër la yoo xam ne da ngay bëgg da nga bëgg fa réew ma bëgg bëgg ba ngay dem mhm. da nga cee bëgg am jàmm mhm. boo eggee itam am fa xéwal mhm. loolu boo si jokkoo man incha allah bu soobee yàlla bu dee wii saa rek nga bëgg moom na sa xel dal te xam ne incha allah da nga ko waaw ndax ñi ma ci ñaanal ñu am wii saa na lool waaw sëriñ bi comme ni koy defee saa su nekk bés bu nekk moodu moodu jamono bi tukki na ci loolu loolu am na xam ne ñu door a na bëgg nañ faa dem am na nga leen dégg nga leen yoo buñ ko saxoo li waaw baax na euh, secret bi may maye. Mm-hmm. maa ngi koy may muudu muudu yi. Mm-hmm. Euh, secret bi képp koo xam ne yaa ngi koy jëfandikoo. lu yomb la nag muy bismillahi rahmaani rahim. Mm-hmm. bismillahi rahmaani rahim képp koo xam ne yaa ngi koy def suba gi junni ak fukk ak benn. ngoon gi nga def ko junni ak fukk ak benn. xéewal dana la yomb suñ fàllu te doo nekk ci ay jafe-jafe mukk te lépp loo jug ngir dem wuti ko suñ borom dana la ko maa ngi may itam beneen kaaraange goo xam ne dangay dangay bind dangay bind faatiya da ngay bind bismillahi rahmaani rahim ubbi miim yi bind faatiya ubbi miim yi miim bu ci nekk danga ciy dugal sa tur ak sa sant ak sa tur waajur wu jigéen ak santam boo paree nga daat koy lem boo paree nga daat koy def benn téere bu ndaw nga takk ko sa digg képp ko takk doo dee si accident képp ko takk itam doo doo doo am benn jafe-jafe jafe-jafe maanaam wàllum wàllum agresseur daal surtout maanaam ñi nga xam ne ñoo dem si làmb yi waaye secret bi ma jox daal képp koo xam ne def nga ko moom li nga bëgg li nga li nga bëgg lépp suñu borom dina la si musal maa ngi koy may mbokki taalibe yëpp képp ku mën a bind euh, ayatul kursi nga bind ko soixante-dix fois ayatul kursi nga bind ko san dix fois soixante dix fois nga boole ko xasum xay ak fukki ak fukki puso ak benn boo koy jëfandikoo di ko sangoo sa guddi bépp gàllankoor boo xam ne moom woon sa yaram wala cat wala liggéey wala luy gàllankoor nit boo ko sangoo da nga gént te boo géntee da nga ma woo. foo jaar mu gént. est-ce léegi maanaam mhm. ñaankat yi ku nekk jug na day ñaan. Mhm. ñii bu ñuy ñaan duñ yor ay kaamil yëpp li ngay xam nga man euh, Sëñ Fall man euh, doxuma ci lu lu leerul. Mhm. man ci lu leer rek laay dox. man ci yàlla ak yonent bi ak sallallahu alayhi ak Sëñ Tuubaa rek laay dox yàlla ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa ci loolu képp laay dox man doxuma ci bëgg xaalis doxuma ci naxaate doxuma ci lenn waaw doxuma ci lenn lu ak njub donc si ak njub sax si njub ak jaamu yàlla ni ma ko Sëñ Tuubaa digalee ci loolu képp laa laa sax waaye boo gisee ma dugg ci ñaan dimbale dimbale dimbale jaam ñi te xam dama ndax damaa xam ne jaam ñi dafa am ñoo xam ne dañoo dañoo ajoo dimbale moo tax ma dugg ci loolu waaye leneen leneen taxut ma dugg ci ngir faj faj eh, aajo jaam yi képp a tax ma dugg ci waaye leneen ak leneen taxut ma dugg ci. am yan dem ci ay stade wala ñi nga xam jamono bii wala ñi nga xam ne ñoo ragal coow lan leen di digal ñu saxoo. waaw li ma leen li ma li ma leen di digal ñu saxoo ko mooy ku si nekk boo xëyee war a dem liggéey wala nga wala wala nga xëy war a dem ci làmb ji. wala wala nga xëy war a dem ci làmb ji. jàngal juróom fukki bisimilahi rahmaani rahim. juróom waaw juróom fukki bisimilahi rahmaani mhm. jàng ko mhm. nga ñaan li nga li nga ragal suñ borom musal loolu musal la si loolu nga nga nga tifli ko sa loxo raay ko sa kanam suñu borom dina la musal ci loolu lépp. waaw sa kàddu bu mujj rek la jaan dëgg la aw aw ma jot suñu fàllu ndax mhm. euh, euh, daanaka jamono yi jamono yi jàll yëpp damaa nekkoon ci tool yi ndax xam nga man ñaan gi euh, ñaan gi li tax mu dugg si mooy faj. aajooy jaam aajooy jaam ñi mais man lii sama lii sama lii sama liggéey dëgg-dëgg mooy tool yi ndax xam nga ne man damay def damay damay defal damay defal nit ñi ay formation ay formation maraîchage maa ngi koy defee fële Kaolack euh, euh, si maa ngi defee dëkk bu naan ngaan ngaan ngaan waaw dama faa yor ay tool yoo xam ne damay defal damay defal nit ñi ay formation surtout maa nag ci vacance agricoles yi ñu nekk nga xam ne ñu bare bare dama leen defal formation moo tax fan yëpp ma xat waaye nag du ñàkk ne du du ñàkk na képp koo xam ne woo nga ma itam lay sa aajo dinaa ci taxaw bu baax a baax loolu doo nga waraloon ma xat waaw waaye nag maa ngi sant maa ngi lay sant bu baax